suñu goro alxaji Bada Njaay jërëjëf mooy wéyjuru aji may ñu soxna yombal ko taxaw moodu taxaw aji tabarakallahu goro bu mel ni yow moom la ñuy tiitaroo bi ngay ñëw àndoo yow képp da ngaa wan ni moodu cofuma bis bi képp kuy imaam kuy moqadam kuy chef de quartier kuy dëkkandoo bu baax am nga ak moom nañu déglu wax ko tur bi. soxna Bintu Fall nee nañ tudd soxna Bintu Fall tabaarakallaahu jigéenu Alxaaji Oustaz Mourou taawu turandoom moom Oustaz Modou Fall ma nga ca Kébémer Kébémer la nekkoon moo nekkoon président association imam yi nekkoon ca département de Kébémer moom la ñu tuddee Oustaz Modou Fall taawam bu ndoom boobu nag ca mbokk ak cosaan ak démb moom la ñu delluwaat tur bi Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha ne tudd nañ ko Bintu Fall jërë jëf loolu kóllëre la. Cheikh Seydi Mouhamed Moustapha nee na Cheikh Ibou Seyni Laay mën ngaa joxe ñaan mbooloo mépp àndandoo jàng ko ñu ñaanal wuy biir bi soxna Bintu Fall mu ndaw ak ay wuy juram Serigne Ibou Seyni Laay nee nañu def ñetti fatiha ñetti ixlaas ñetti ixlaas ñetti salaatul fatihi yàlla yokku ñu xéewal ñun ñëpp nee na yàlla yokku ñu xéewal ñun ñëpp sëriñ bi yàlla bàyyi ko fi Cheikh Seydi Mouhamed Moustapha yàlla bàyyi la fi bàyyi fi njaboot gépp bàyyi fi njabootu samaam Cheikh Hadji Malick gépp ki tax ñu teew fi nee na ki tax ñu teew fi yàlla def ko mu doon mag yàlla def ko mu doon mag ñun ñëpp yàlla faj suñu aajo. tabaarakallahu ñu dëgg ci ñaan yàlla faj suñu aajo ñun ñëpp. ci barke Seydina Muhammad ci barke sallallahu alayhi wa sallam. nañ def ñaan gi bu dul egsi. wax leen amiin ñu ngi ñaan. wax leen amin amin wax leen amin bi hurmati laa ilaaha illallaah muhammadu rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf tabaarakallaahu nañu yolmal soxna si mu génn ndànk ànd ak suñu ndoom si Buuba Nduur jërëjëf jiitu nga yegg si alxaji Mara Dieng mi ngi nii ngi ci biir délégation desk religieux Oustaz Pape Anne teel naa ñëw kon tabarakallahu xaj boobu mën ngaa ànd ak délégation Futurs Médias ñu jox alal yi ñoo gumbu ci lu gàtt jataay bi xam na waaye ñun dañu bëgg mu baax alaj ñu ko bismillah bismillahi rahmani rahim mbokk jullit yi ñu ngi leen ziar ñu ngi leen di jéggalu ñu ngi leen di jéggalu kàddu yi ñuy yëkkati ci kanamu Serigne Moustapha mii ñu ngi nuyu kilifa yi teew yëpp jiital ci bi Modou Mbaye eh, ma a jàngal jiital ci mii toog ak mbokkam mii mu feggool di nuyu mbooleem borom xam-xam yi ñi fi teew ñëpp li ñu wax du bari da wërta bari sax na li ñu xam nag gaamu bari na ci ci diggante Modou mii ak baayam As ak maamam Modou Fall soxna Bey ñu ngi nuyu Pape Fall mi toog ñi nga xam ne tey mooy seen xalifa kër Oustaz Modou Fall ñu ngi koy nuy bu baax suñu doom euh, baayam yónne wax na ay kàddu yoo xam ne pour ñu jotal ko mbooloo mi xam naa li wax lépp sax pour ñu mën ko jot li moom dana dana xaw a metti ci noonu waaye sëñ Moustapha ñi ngi lay nuyu bu baax di nuyu mboolem xadara ba jiital ci sa bàyyi bu tedd ba nga jóge nga xam ni doo dox lenn lu lum la defloo mbaa lum la waxloo euh, fan yi gàmm gi avant gàmm gi ñëw papaam xalifa général dafa joxe ndigal jox ko sëñ Moustapha ne ko doxalal gàmm gi ak lu ci aju ma ne jox nañ ko ku ko man nag ndax da koo xam ilimaani jàkka masi la ilimaani jàkka kenn du ko woy ca kër ga naan kay jiite jàkka ji kon sëñ Moustapha fii mu teg tànkam ba ay baayam ak i magam yépp wóolu ko foofu ñëpp d'accord nañ ci toogul woon rek nag toogul ci benn ruq rek xamul lu mag ñi def déedéet daan ànd mag ñi lu ñu def mu fekk lu ñu wax mu dégg kon kooku yomb naa won mbir yi oustaz Modou Fall ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla musal ko cat ak saytaane Modou Fall yal na yàlla musal la ci cat ak saytaane jataayu tey bii nag barke alxuraan moo feeñ barkeb alxuraan moo feeñ alxuraan mën na lu ne Modou Fall bi muy xale ba mata dal jàng bàyyam da ko yóbbu ca daara ji mu jàng ba tari alxuraan fii la ko taree fii fii nii fii la taree kaamil kaamil kaamil la tari benn yoon ba mu ci jógee ci daara ja bàyyam wut benn ustaas ku tudd caam yóbbu ko ca sunu bàyyi xaaj Ousmane Kayre mu koy jàngal xam-xam moo wax sama waa kër ustaas Modou Fall bor boobu sa la sa papa lebal fexe ba nanga ko fay ci say njaboot ndax lii lu rëy la te alxuraan rekk moo ko waral ba mu jógee ci loolu mu yóbbu ko mu jàng métier daa jàng métier ba man ko def nag li ñëpp war a def ba egsi fii mu egsi lépp nag mu teg ko ci ndigalal baayam ak ndigalal yaayam baayam ku gërëm Modou Fall la Modou Fall nii ku fonk ay waajuram la ku fonk ay waajuram Maodo Fall fonk na la mbokk yi yëg leen ne Maodo Fall ku faaliwul waajuram yi da nga xam ne faaliwul la sëñ Moustapha sunu xel dal na caw lool parce que lii nga def lu rëy rëy rëy ci noonu la loo xam ne duñ ko fàtte mukk ci àddina waaye bokk yi dig fii li muy xat-xat bàyyam bu tedd ba sëñ Abdou Aziz Al Amin ñëw na fi ay yoon sëñ Moustapha mii tey dëkkul ci lii rakkam yëpp moo leen tudd rakki Modou Fall sëñ sëñ sëñ sëñ Abdou Aziz moo leen tudd ca ñii ci Espagne ñii fii kon lii tey bu amee am nañ ci contentement bu rëy rëy rëy waaye lépp ñu jël ko delloo ko ci alquran bokk yi suñuy doom yi nañ leen jàngal alquran alquran na jiitu ci dënn yi ba noppi bu jiitee dënn bi loo ca teg mu dem lii lépp alquran la kon Modou Fall sa waajur yi ci biir an bokk sa yaay nekk ci kër gi ñoom ñëpp ñu ngi lay gërëm teg ko sa gërëmal yaay yi nag ku ne xam ne sa yaay gërëm na la jërul wax sa yaay gërëm na la loolu jërul wax sa baay ñaanal na la loolu jërul wax bokk yi nañuy sonn di jëmale ci way jur yi nañuy bàyyi xel suñu way jur yi lu ñu am ñooma lu ñu am ñooma kuñ cee teg ñu soog ko caa teg Modou Fall sa yaay gërëm na la kooku wax ko yàq ay wax la sa baay ñaanal na la wax ko yàqi wax la xam nañ ne ñaanal nañ la bu li ñaan woon doo egsi fii waaw buñ la buñ la ñaan woon fii doo fi si mbooloo mi fi daje du fi daje mbooloo mi ku sa ndey gërëmul sa baay ñaan la mënoo koo dajale nday Gueye nga ne taxaw fee di wax nee na lépp lu ma wax ci Modou Fall doyul waaye nag bis bi dafa am dafa xat sëñ Moustapha mii bu xasee ba teew teew fii li ñu war a wax lépp xam na ko te danga ko wax lu ñu war a wax rek sëñ Moustapha xam na ko te dana ko wax sama taxawaay bii ma taxaw fii maa ngi sant sëñ Moustapha mi am naa taxaw toog naa lu yàgg mun maa taxaw waaye dama ko woo mu jox wax ma loo xam ne ba ma ko defee maa ngi taxaw sëñ bi jërëjëf garab ga faju yow bi yaa ma faj jërëjëf si Malick ngeen baal ñu àq wasalaamaaleykum kilifa yëpp nag ñu ngi teew alaaji Moodu mi ngi nii teew di kilifa asfal asfal loo mën a wax ak koo wax te waxoo alaaji Moodu day wax waxoo dara kon moo Moodu ngi nii toog Pape la ngi nii toog di kilifa ci as bu xasee ba teew rek mbokk Njaaréen kenn desul ngeen baal ñaar asalaamaaleykum wa rahmatullah alaaj njoogu jërëjëf yàlla yàlla fay la sëñ Ibou Seynou Laye walaw bi kalimatayni ni mu gàtt gàtte rek tabarakallahu ku ne xam na cër bi la sëriñ bi jox bi ñaan jotee daf ni Chérif Ibou Seynou Laye ñaanal waaye tabarakallahu bëgg nañ dégg sa kàddu bu ñu paree ci yow jox imam Masila Kane tabarakallahu wala bala ñu koo jox oustaz Pape ci turu GFM ñu jox imam Masilla mu tijjil Cheikh Seydi Mouhamed mu yëkkati kàddu yu jige ci xadara ba ñu ñaanal ñu bi Cheikh te wax laa ilaaha illallaah dem ca peyam ba ñu gëm yàlla gëm baay laay lii moom te wax laa ilaaha illallahu danay war jigéen yàlla ak firdaw si ak tem ca Pemba bi zikri lena ku sopp Seydina Muhammad bi xatti Mansuur zallan kaafahu zalala baax ci daje bu tedd bii ñu daje tey ci jans bi ñu ngi jël Cheikh Anta nuyoo yeeg ziar yëpp di jox sama doomu baay si Moustapha yal na yàlla bàyyi la fi li Cheikh Anta Samba wax dëgg la gàmm yëpp daan na neex waaye gàmm gii ni nga taxawee xadara bi ñëpp teg nañ seen bët. ngay gardien du temple yal na yàlla bàyyi la fi te may la wér yaram te nga gudd fan lool te nga sut suñu waajuroo fan nga xamante ni man sama xarit nga woon sama soppali woon yal yàlla bàyyi la fi bàyyi fi xadara bi jabootu TFM gi toog mën naa ci jàpp maraaje ak sama waa ji lay toog ñu alaaji buuba yàlla defal ko jàmm njaboot gi yëpp yàlla may gi wér gërëm may fan ci barke maamam si naani maamam di ñaanal oustaz Modou Fall mi aye wax ji du bëri ñu ngi koy ñaanal bu baax Serigne Ngagne ñu ngi lay ziar bu baax sama waa jooju di ñaanal Oustaz Modou Fall bu baax a baax nee naa ko jàppoon naa la waaye jàpp moo la jàpp keroog bi Serigne bi nelawee jëf yom fa jëf dama jeeg saar gis ko mu toog sama tànk te doomu aadama yi kenn moomu leen Oustaz yàlla yàlla guddal sa fan fii nga nekk ci sa xadara maam Seydina Limaamu bii nga xamante ni sang bi way yii ma doon way borom dëkk bi mooy imaam Saxiir moo ko doon way moo ko doon wayal boppam defe naa oustaz Modou Mbaye xam ne li may wax baax a baax ci dëkk bii la taalif taalif yi mu doon taalif sa dëkku maam Seydina Limaamu bii kon bu fi oustaz du Fall nekkee am xew-xew bu toy nii mën naa ni Sénégal gi yëpp daje fii ah ku bëgg lu baax te sopp lu baax Serigne Ngagne sa xol dina rafet Modou Fall jërëjëf yàlla yàlla guddal sa fan Cheikh Anta Samb wax na dëgg fii jarul xëccoo dara jaru ko dara jaru ko nañu nekk ay jullit maa ngi koy wax démb defe naa ku ma déglu dégg ko nanu nanu bàyyi sunu mag ñi li liñ fi defoon kenn dootu ko fi defati barke alxuraanul karim bi Serigne Touba di dem géej ku demoon doo ñëwaat moom la yàlla nattu nattu mu liggéeyal rasulilah dem ca géej ga dem ca ilu Mayomba ba def fa juróom ñetti at yu manqué ñetti weer nekk fa lekkul tëddul nelawul ngir jaamu yàlla yi tëx ëllëg biñ ko laajee Serigne Touba lan nga wax mu ni fataxtu baabu sukri fii sahri safar loolu kese la ci jublu woon kon na julli ñi joxante loxo Sidi El Hadji Malick Oustaz Mohamed Mbaye bis bu ne ma wax ko maam Maodo li mu bind boo dajale woon naaru màkk yi mun ñu ci àndal benn araf sa maam nee na bi mustafa nekkee ci biiru waajuram sa maam Maodo nee na maa xam li xew xaddaa bi ab waay Abdoulahi xiinama daa sëhraani lil hamli aza asxolul kalimi loolay mag ñi kon sa gars yi nañu def ne Serigne Ablaye sa bàyyi defoon soo demee kër di nga ko fekk Cheikh Tidiane si di nga ko fekk Serigne Mansour di nga fekk alaaji Ibu Saaxu di nga fekk sëñ Modou Moustapha di nga fekk sëñ Fallou di nga fekk sëñ Abdoulahat Mbacké di nga fekk Cheikh Ahmed Tidiane lépp mu nga kër sa bàyyi sëñ Abdoulah kon na jullit ñëpp def ni moom bàyyi sa maam dafa taxaw buuba ni mën a démb mën a tey booba ba tey kenn gisul fotoom géej ga mu randaloon fa bi mu génn àddina foofu la ñu ko dencaat kon lii mooy Sénégal na gaa yi bëggante te joxante loxo te soppante te li ñuy wax ci kaw nu wax ko ci suuf te ñu defar xol yi te xoolante te bëggante te wax ci kaw waxaat ci suuf suuf amul solo oustaz Papaane yàlla yàlla guddal sa fan ku fi toog yàlla nga fekk déwén yàlla yàlla defal julli ñëpp xéwal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bismillah tabaarakallaahu oustaz joxe message wu groupe Futurs Médias waaye ñuy seedeel sëriñ bi sa mbokk sëriñ Maodo si doomu sa way sama turandoo sëñ Cheikh Ahmed Tidiane si yebal na fi délégation ñu ñëw ànd ak yow bokk ak Moodu mbégte mi sëñ Ibou Seydi jërëjëf wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafaraqu oustaz Pape An mooy joxe message yu groupe Futurs Mouhamadul Moustapha sëriñ bi ñu lay nuyu si ñu ngi lay ziyaara ñu bu baax baax di am mbégte ci sa teewaay bii sëriñ bi sa teewaay sa taxawaay ci sa xadara maam bii sa teewaay sa taxawaay ci xadara bi sa taxawaay ci diine ji sa taxawaay na ko sa maam defee woon Seydi Hadji Malick bàyyi noog sunu bopp bàyyi noog sunu xel fexe ba nu xàmmee Seydi Mouhamadul Moustapha olof dafa léebu ni bëgg sëriñ bi sëriñ bi bëgg la moo ko gën a neex waaye sa jotaay tey bii moo tegtal moo wane taalibit si alaaji Moodu nag gi mu am ci yow nun ni jege xam ko bu loolu saa yu nu ko gisee dañuy gën a yëg mbëggeelam ci yow la arab ba waxoon sëriñam ni ko bi ma lay bëgg xaw ma lan mooy mbëggeel bi ma demee ba xam lan mooy mbëggeel nga sax ci sama xol bi loolu la muy junju mooy baayam bii alxaaji aas baayam yu baax yi ñoom alxaaji njóogu ñoo ko tàggat yar ko ci jeex tàkk ci kër Seydil Hadji Malick mu juddu ci baayam xiir ko ci kër gi ataani hawaaha xabla an urifa hawaa fa saadafa xalban faarixan fa tamakkuna léegi doo arab bi dafa wax sëriñam ni ko bëgg naa la balaa may xam lanay mbëggeel bi ma demee ba xam lan mooy mbëggeel nga sax ci sama xol bi kon sëriñ bi nu ko lay ñaanal gudd fan nu ko lay ñaanal wér di am te lool di nuyu Cherif Ibou Seyni Laay mu baax nii sëriñ bi maa ngi lay seedeel xam nga ko bu baax sax nga gën ko xam waaye Cherif mbaax gi ne ci moom yëg nit gi nekk ci moom Cherif Ibou Seyni nu ngi lay jox sa wàccuwaay di la ziar euh, di nuyu sëriñ maam sëriñ Sarr mii nga xam ne sunu lépp la ma nga jóge ba Medina Sarr ci fajar la fi ñëw di wóllëri haj moodu waaye sama kàddu ñaar lay doon benn bi sama diggante xaj moomu nga xam ni loolu avant Groupe Futurs Médias la beneen bi mooy sama kilifa yu tedd yi ci fii nuy liggéeyee di Groupe Futurs di xaji Mara Dieng baax mi baax lool yiw lool sëriñ bi bu nu génnee émission mara woo na mu félicité nu encouragé loolu mbaax la ndax nit bu nekkee ci barab nekk fa ak yow muy génn di waxtaan nga koy message ci biir émission bi di ko encouragé yaa ngi koy yokk doole mara nag noonu la nekkee noonu waaye sëriñ bi sunu directeur bii di directeur programme Bouba Ndour alxaaji Bouba Ndour sëriñ bi maa ngi lay seedeel mbaax gi ci moom buuba bala nga koo xam dëkk nga nekk ak moom sëriñ bi borom jikko ju rafet ngi nii man groupe Futurs Médias am naa fa fukki at ak benn léegi ma am fa fukki at ak ñaar kon maa ngi fay bëgg a yàgg waaye sëriñ bi musuñu maa wooree buuba te sëriñ bi yenn saa yi xam naa nga taal télé bi wala dugg ci net bi gis ma ma ne bitim réew maak Moodu mii moom bërki démb lañu ñëw biig la biig te dañ ñu embauché dañuy ñëw ci booba booba dañoo am gàmm Italie de Amérique la ñu jëm boobu du lu yàgg benn ajjuma bu ñu demee def ñetti ajjuma mbaa ñeenti ajjuma mais mbaax gi de ci moom ak ndimbal ak xàmmee xam àddina gi na ci moom moom ak njëgal Ndour Birane Ndour rawatina Youssou Ndour sëriñ bi maa ngi lay wax ñi tedd nga gi ci ñoom bala nga leen a xam nga nekk ak ñoom bala nga leen a xam ngay dund ak ñoom ñu baax a ngi nii ñu yéene nit teraanga nii ñu ngi leen di ñaanal yenn yàlla yokku leen dëgëral bu ba kontaan nanu bég lool sëriñ bi muudu nag nit ku baax la Moussa Assane bismillah sëriñ moom Abdul Aziz si bu sëriñ Babacar Abdul Aziz sa mos mooy dugg ci noonu alaaji As nu ngi lay gërëm bu baax faal di nuyu sunu borom alaaji Badara Njaay di am mbégte bu baax gërëm nag sunu soxna aji Cheikh bi ci biir muuru dafa ni ma li tax mu xaw a gudd nii sama kàddu yaa ma koy waxal na nga ma gërëmal sama baay moo du ni ma na nga ma sama baay na nga ma gërëmal sama baay yar na ma taxawu na ma ba bi may nekk xale damaa defe ne woon sama baay damaa bañ ndax jël ma rek yóbbu ca daara ja daara ji metti lool weer wu jot rek ma gis ko mu ñëw fay demaat sëñ ma ab bismillah si simaani si simaani si si ñu lay ziar baax sëriñ Mame Abdoul Aziz Sy mu sëriñ Babacar Abdoul Aziz mu wax si léegi di léppi xaaj Moodu ma bismillah Oustaz Assane Seck bu télévision Futur Média bu groupe Futur Média moom itam mu wax si léegi alaaj Mao Cissé Oustaz Massila Kane di sunu soppe di sunu lépp na bokk Sidaat Cuun bu groupe ma Médias bu RFM di ko gërëm bu baax a baax a baax Oustaz sa bismillah sëriñ bi ñu ngi nuyu Abdoul Aziz Alé Ndiaye Abdoul Aziz nag sa mos waaye digganteem ak xaaji Moodu loolu kenn xamoon na mu mel xaaji bàyyi nu ngi leen nuyu baax a baax Ndiaye Abdoul Aziz ñu la ñaanal wér yow sagu xadara kër Seydil Hadji Malick Alaaji As ma wax rek li muy Serigne Modou yóbbante Modou ni ma na ma gërëmal sama baay ci taxaw gi mu taxaw Alaaji yal na yàlla yokk la dëgg Baye Talla Cissé moo waxoon ni sa doom da nga koy jox yàlla sa doom su màggee yàlla delloo la sa doom mu ni doom nag boo ko xañee yàlla sa doom bu màggee yàlla xañ la sa doom ko yàlla yokku yéeram sama ma pap doom da nga koy jox yàlla sa doom bu màggee yàlla delloo la sa doom mu ni doom nag boo ko xañee yàlla sa doom bu màggee yàlla xañ la sa doom mooy la nga bëgg ci moom doo ko amati mu ni ma doom nag bu nekkee xale xàmmeegul da ngay fexe mu bëgg la bu demee ba mesure ba mag nga fexe mu rus la yàlla yàlla yokk ko yërëm Moussa Mouhamed Mbaye mu ngi leen bu baax bu ma jëlee njaga njaay alxaaj njaga mu joxal ma ko mbooleem ñiy tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekk ci yëmbal alaaj Pape Diop oustaz Modou ni ma nga gërëmal ma sama yaay aw ma ndax sama baykat mënoon naa baax bëgg lu baax bëgg alquran waaye sama ndey du liggéey lu ma mën a fajee soxla waaye sama yaay aw ma fayam sëriñ bi Moodu nee na nga ñaanalal ko yaay yàlla guddal fanam ñaanal na ay frèram ñaanal ay tantaam ay soxna baayam ñaanal ñi mu bokkal ndey ak ñi mu bokkal baay nee na kër gi boo fi duggee doo ne ñu bokk ndey ak ñu bokkul ndey loolu lépp alaaji asmi la waaye Moodu nee na nga gërëmal ko waa koñ bi bu baax gërëm nag xaritam yi nga xam ni ñoo nekkandoo xale ba tey ñoom ñoo ñoo moom la moom daal loo xalaat ci mbaax daal oustaz Moodu nee na ma nag ma ko waxal baax Moodu nag alaaji as day sama xarit man mii maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm Moodu ku ne gis na engagement yi muy jël ci man Moodu man dafa maa sopp waxuma mbëggeel sama diggante ak moom waaye man dafa maa sopp ba ma xam te loolu du léegi waaw Moodu dafa ma sopp bi may njëkk a dem Italie 2013 dama ànd ak moom ay tournée yu bari ma fekk Genova boobu xam ngeen ni boobu laay door a am Europe sama première tournée waaye Moodu lijjanti na fexe ba ma jëlee fa ay euro yu bare loolu nag faaw ma seedeel la ko waxuma loolu alaji as waaye ci biir réew mi moo du fu mu xalaat ni fii war nañ fa yëkkatikoo war nañ fa am teraanga daañu joxañ loolu fonk na ma ci lu muy dugg dina ci toog waxtaan ak ma lu muy def dana ma woo bu ma woowul dana ñëw sama kër toog ci waxtaan ak ma di ma déglu di déglu sama xalaat man itam may déglu xalaatam ndax xam naa fullaam xam naa mbaaxam xam naa personnalité am xam naa ni yëpp ci moom lu mu la wax dëgg la kon oustaz Modou yal na yàlla guddal sa fan yal yàlla yokk la dëgëral mission bii nga ne yàlla bu la kenn ëppale ci rasulullah yal na yàlla sagal la nit nag boo amee kilifa santal yàlla waa groupe jigéen ñi ñëw nañu madame Ba ñu ko mu Ndiaye waa jigéenu groupe Futurs Médias ñoo ak si noonu yal yàlla yokk la dëgëral sama euh, Tidiane Samb bég nañu Euh, Cheikh Anta Sakho yal na yàlla fay leen Chérif kontaan nañu bu baax a baax a baax doon nee na toujours dafay wax ci Modou nii ay taam-taam ñoo ko gënal yaayam dégg nga alaaj ñoo na ay taam-taam ñoo ko gënal yaayam nee bi mu jàppee ci moom ba mokkal alquran noonu la sonne ci rakkam ba ñoom ñëpp ñu mokkal alquran ay rakkam bu ñu toogoon ñoo ko gën a mokkal alquran ca taxawaayam la ci biir kër gi ak ci njaboot gi di sant di ko gërëm di sant yaayam nag ci taxawaayam ci biir kër gi dikk euh, moom ak ay rakkam nee na moom du toog nee na bis bu ne mi ngi ci àll bi mi ngi yëngu ci transport waaye kër gi bi moodu xàmme ak léegi amatuñu fi jafe-jafe maa ngi sant sama mbokk transporteurs yi ñi ma bokkal transport bi ñëpp ngi jotaay bi toog alhamdulilah waaye beneen bi Cheikh alaaj njóogu mi am na loo xam ni mënu koo wax mu ngi koy sant mi ngi lay gërëm alaaji moodu bu mee mooy magam ba ñu xàmmee ba fi mu ne mi ki loxo lu ñu am ci tiwaawoon ci moom lu ñu am ci tiwaawoon rek lu ñu am ci sëriñ Mansour am ko ci sëriñ Abdou am ko ci sëriñ Moustapha mii alaaji moodu mii la am na jamono yoo xam ni jamono lëndëmoon na moonu woo ba nu ñëw mu ni fii ngeen teg seen tànk du fii fii la ñu dégg ndigal teggi ko teg ko la ñu lam ñu sant teg ko fam ñu sant këccuwuñ wéccuwuñ ko nag gannaaw moom alaaj njóogu mii mooy porte parole famille bi taxawaayam foo ko takk passé na ko bu ñuy dem Tiwaawan xeeb na su oto yi bopp day wuti oto dim ci boole buñ demee taxawaayam yegg na foofu lu ñu am Tiwaawan ca kële la jóge alaaji Moodu waaye moom mii bay na ci waar wu rëy nee na Seydi Mouhamadul Moustapha Al Amin dañ koy sant da see lu ñu dara nee na ñu mënal def na ko kër gi Sëriñ Abdou teg na fi tànkam ba tàyyi ay yoonu yoonu yoon alaaji Moodu mii daraan wax ni man de aas li ma jaaxal ñépp dañoo mel dañoo daw jëm ci sëriñ bi sëriñ bi mel ni daa daw si jëm ci si yow ci nit ñu jàppee moom sëriñ Abdou moo ko wëllërim bii amuñu heure dañuy ñëw mboolem njaboot bu ñu agsee kenn duñu téye dañ naan kaccet rek bunt bi toog ak sëriñ Abdul Aziz Al Amin ci la yàlla yokk leeram daje nañu conférence mënuñu dama bëgg ngeen xam ni fi ma leen seen fu ma leen seen ñu ni ma sa gaa yaa nga ne waaye fu ma leen gis fu ngeen ma seen fu ma leen seen ñu ni ma sa gaa yaa nga ne waaye fu ma leen seen ñu ni ma sa ñoñ yaa nga ne barakallah am nañu mbégte bu baax a baax waaye seex des na de Moodu nee na ma gërëmal ko aji soxnaa nee aji baax aji yaru na aji téye téye na tànkam aji yem na ci ay loxo aji déggal na ko moo du nee na aji doylu na aji mën naa toog aji set na fi mu daanale mu ne ma aji daal fa tabaarakallah ma xam li ma bëgg a wax lépp kon aji noo koy ñaanal yàlla barkeel njabootam yàlla barkeel njabootam ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam gërëm na baayam si naa badara mii gërëm yaayam nee na wóllëre Modou yi Modou jàpp leen ñoo ko jàpp jërëjëf ci seenu mbaax ak amu benn soppeeku amuñu benn changement fu ko gis jërëjëf Fall nee na yàllaa leen boole sëriñ bi nga ñaanal leen seen ànd bi rafet na lool jërëjëf Fall Cheikh sëriñ bi maa ngi jéggalu ci kàddu yi bu baax a baax a baax Oustaz Pape Hann sëriñ bi nee na kàddu rafet na dafa fekk na ñi suñu goro yi nga xam ni Alaaji Bada Njaay mi ngi toog kàddoom Alaaji Yuuso koy jël lii nga wax ci groupe Futurs Médias Oustaz Pape Hann tabaarakallaahu moom la Alxaaji Buuba Nduur bëggoon a joxe benn complément ñu ni ko nag goro incha allah comme ñooñu may soxna buñ leen joxee ba noppi buuba dina complété ci lu gàtt imam masila xaar ñu jox ko mu ubbil Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Abdoul Aziz Al Amin nijaayu Modou Fall yi waa Makka Ndiaye délégation bu mag lañ def oustaz Pape Sylla jërëjëf lii nga